Euh, yaakaar waal mi laay wax dama yaakaar ni yéen li ngeen def da ngeen ko ñàkk xam parce que lii dafa yokk économie réew mi parce que ñii ñëw dañ ci yëg seen bopp ñii jaay dañ ci yëg seen bopp ñëpp ci yëg seen bopp waaye maa ngi yéen nuyuwaale sama xarit boobu nga xam ne moom mooy lamp nee na lamp cuuraay tey bu kër ga dee neex euh, yow da bokk ci ñi tax euh, kër gi di neex loolu maa ngi lay kontaane lamp mooy séeri tuuti waa kay sama yaay yaay Sira Fall yaay maa ngi lay nuyu Fatou Bintou Mbaye nuyu ma sama yaay bu baax a baax a baax Baye Ndiaye balaa may ñëw ci yow damay bàyyi sama waa ji bu nuyoo salaamaaleykum salaam Abba kër gi day neex lamp cuuraay bokk na ci tax kër gi di neex. Ah. ak kay lamp maa ngi lay kontaanee kon kër gi mu ngi neex. waaw ayca <laughs> ma bàyyi la nga nuyoo teg àdduna. <laughs> asalaamaaleykum Abba yi ñu ngi seetaan ci 2STV di nuyu suma frère Amady Badiane mi fi jóge léegi léegi Badiane Sakkurawali di ziar Sénégal yëpp di la wax ñi namoon naa lii. namoon naa ko <laughs> avant tey lu ma togg lu ma namu toggantu <laughs> ko. ayca am na solo. ayca ah. Wally dañuy wax euh, histoire Wally ak grand théâtre waaw grand théâtre moom nag suma kër la. mu mel ni foofu moom waaw. loolu la yàlla dogal mm. suma kër la bokk na bokk na ci salle boo xamante ni li ma fay dem bëri na. Mm. donc euh, sama grand théâtre day teel a tàmbali. Mm. day teel a tas. parce que yéene bañ ciy def moo ëpp yéene bi day bari lool lool lool lool lool su su grand théâtre amee damay sax stressé pourquoi amee stressé parce que dafa dafa bëri coono nit ñi dañuy ñawlu ji préparé wu xam nga def ko fête bu rëy rëy donc man grand théâtre sama kër la waaye nag kër goo xamante ni diis na ci man mhm. parce que bu amee dama koy yenn dama bëgg muy naayis ñi ñëw bañ am coono bañ a sonn donc daal euh, may ñaan grand théâtre bi nekk bu spécial. ayca am na solo. Hmm. ayca am na solo Waly kon ba tey yaa ngi soog a yegg euh, laaj yëpp dañu la koy jël rek def ko benn laaj di la ko jox par nànk-nànk euh, sa relation ak bàyyi seen collaboration fu mu jugee ak tey jii fan ngeen yegg fi ñu toll nii. Baye Ndiaye c'est mon frère ku ne xam na ni Baye ay mag moom weesu na promoteur ak waykat. wesu naa xarit ak àndandoo sama frère la loolu la yàlla dogal sama digganteek moom bëccëg la ak suba teel. Mm-hmm. dara dox ci dara dox ci. waaye dañ koy gis ci spectacle yu mag Wally fu ne lañ ko topp ñun ñii sax eh, topp nañu Wally fu ne mais dañoo gis ah Wally Seck grand théâtre bu àndi ak femme yi mu ciy wax ñu naan femme lañ ci njukkal ak femme lañ ci sargal spectacle bi am foofu du am ci ay spectacle yeneen Wally Seck parce que ci grand théâtre rek la ñuy gisee Wally indi ay simb gaynde ci la ñuy gisee Wally indi ay ay ay góor yu yor ay bool ñii di def lii spectacle boobu di am foofu lan moo tax ci grand théâtre yooyu rek ci wàllu jigéen ñi rek la ñuy gis Wally def spectacle yu mag yu toll noonu. waaw xam nga spectacle yi dafay daf koy da koy laaj lu ci nekk daam lu mu koy laaj. Hmm. yàlla xam na ni man woy bi rek laa géré ànd ak samay musiciens ñu répété mais côté spectacle yëpp Eumeudi Badiane moo ko géré. Mm-hmm. man géré ma loolu li jëm ci côté sortie génn tout ça kii def lii lii def lii moom mooy mm-hmm. def thème bi parce que il e là pour ça. Mm-hmm. moom moo gére affaire yu spectacle yi ni ñi ko lay demee parce que am na ci notion ba ci sama clip yu bëri moom moo koy réalisé am na ci notion donc moom moo géré affaire spectacle yi soo gisee chaque fois bu ñuy dem grand théâtre muy am lu bees ñu indi lu bees li ma la wax rek moo ci nekk waram daan ñoo bëgg grand théâtre seen biir xol suñ ci duggee dañ ciy dugg ak yéene donc bii moom attendez-vous à ce que mu nekk lu extraordinaire mm-hmm. incha allah mu nekkaati mu nekkati lu extraordinaire mm-hmm. waaw am na solo mais waa dañu gis ba ci extraordinaire gi day bokk ci abima bi parce que Wally ni mu mel ci sañse euh, ñu xool lu toll ni grand théâtre ak femme euh, relation Wally ak euh, les femmes ni mu demee nañ ko bëggee lool lool lool Wally ñëw ci lu toll ni grand théâtre ñu koy xaar ci sañse Wally sol lii man man lii xaw ma lan la parce que bu fekkee mën ngeen ma ko wanaat ngeen wan ma ko lii c'est mystique wala wala wala lii lan la. waaw lii yëre la. yére lan. yëre. lan. loo ci bëgg xam yow. yére bi lan moo tax Wally ñun ñi lay xaar ci sañse ci kii nga sol lii lii mën nañ ko wooyee bu la neexee mën nga ko wooyee nu la neex mais ñun war nañ laa laaj Wally lii la ayte mën ngeen maa woon yére bi la tàmm ci tontu parce que dina ci tontu lii lan la Wally man gisuma yére bi de. <laughs> Karajo wan yére bi gaaw ñu xool lii man eh, faru mbaam laa ko teg rek mbaa waaw lii lan la Wally. wane guñ ma de. <laughs> Karajo te ñëwoon li le temps kii di excuse ñu mën a xool li Wally sol. le temps may ñëw ci grand théâtre bi ni mu mel. parce que da nga jàpp ni excuse lay wut quoi. parce que waaw waaw. parce que ni mu meloon nii keroog. non lii lii Aba xam naa li nga wax yëre la rek. Hmm. yëre la rek am nga dama ko fiil am nga c'est la classe. waaw hmm. ah, c'est la classe c'est la classe. amul leen lu ci rax. lu ci rax moom mënuloo ko xam. <laughs> donc lu ci rax lu ñu xam. mais yére bu nice la de. ok ok ah ok. waaw dafa dafa mel ni bi ñu yeewoo lendemain ñu ne coow de. waaw bi waaw waaw waaw lii moom bi ñu xëyee si yëpp moom lañ jëlaat euh, lan moo tax le pourquoi Wally sol lii parce que Wally ci fashion Wally ci sañse Wally sol lii le pourquoi parce que lii si yëpp laaj nañ ko tey nag xam naa ni mooy nekk en exclusivité Wally ñëpp lay tontu tey. waaw léegi loolu tontu bi. Hmm. dama koy téye. incha allah parce que maa ngi ànd ak waa Dóor na. waaw dama koy téye ba le 10 incha allah. Hmm. Sénégal ñun dinañ xam le pourquoi. je vous promets incha allah. ayca waaw ayca kon le 10 lay ci lay tontu ñëpp euh, comme ni ko ñëpp xame rek ma koy baamtu c' est la télévision autrement la télévision des grands événements c' est la 2STV bàyyi événement bi. dañ cee investir ba ñi koy présenté ak caméraman yi ñëpp da nga leen xottil ay yére yu ñu war a sol. waaw <clears throat> maa ngi nuyu Waly mi ngi soog a ñëw son frère. Mm. mooy li ma la wax sànq rek nga tey ku mel ni Wally yi soo koy organiser waroo ko jël rek ni ko dama lay organiser benn kii rek bàyyi ko noonu. Mhm. dañu ci war a sonn daj ci ay coono parce que Wally dafa am lu ñuy nelaw ci moom lu bari moom way bi mu ngi nelaw mu ngi koy yee. Mhm. mais Wally rek spectacle ak ñi muy àndal ak ñëpp tey soo ko jëlee tuur ko ci benn salle bu mel ne grand théâtre promouvoir ko defoo ci li ci war nit ngi day ñëw rek toog seetaan après dem. mais dañ ciy daj ay coono daf def ci loo xam ne moom dañ gën a sawar mais loolu kenn su ko def benn promoteur mosul organiser jël ñi nga xam ne ñoo nekk ci organisation bi ñi war a présenter ñi war a ñëpp nga jël xot bi nag dafa war a am licence promoteur dañu war am licence comme ni ko laamu <laughs> jaamee parce que jël benn artiste am ñoom ñooy fay artistes yi jël artiste daanal ko organiser ko loowal ba mu loo ba affaire bi du saf xorom du saf dara mu ñëw jeune noonu rek après dem après ko waxtaane xam nga tey événement bi dëkk lu def une semaine ñu ibil ñu télé bi ti tey ñu ci commenté da ci wax comme dañ ci war a war war a sonn quoi ba tey ki ngay ki artiste bi da ciy sawar di sawar ci ñëw gu mbay sawar ménager yi ñëpp sawar di xaar bis bi ñëw bu ñëwee tamit nga gis lu ko jar parce que dagg sa billet waa li ñëw defalu lu ko jar Baye Ndiaye wanalu lu ko jar 2 wana lu ko tey bu ëllëgee koo woo du la wuyu xam nga benn di nga ko topp trois ans di ko tëgg kenn gisoo kenn ko ci kaas ñëpp dañ naan dañ ko yàkkamti ñëpp naan gongo kon am na lu ci ne a yéegal parce lii bu jàllee waale bu newoon cinquante pour mm-hmm. moo mm-hmm. nit moom mooy kii nit kii way ah, mais damay wax le produit waal euh, daa dox waaw ah, produit bu gën bu neex a la mm-hmm. tey waaye kan ma koy présenté ti nii ñoo lay wasa dama bëgg dugg ci nàngam dama bëgg a def lii dama bëgg a def laa man li ma sànq rek moom mooy dem ba ne ma bàyyi utal keneen te wax na ma ko sax ren ma ne ko utuma <laughs> saa yi moom kër ba ma ñëw ne ma daal léegi dama bëgg ñu waxtaan ma ne ko lan nga bëgg nga ne mut keneen mu tëggal la ma ne ko non saa yi utuma soo bañee ma damay gën annoncé yi direct ne damay tëgg kon xam ne produit boobu kan moo koy fa <laughs> jëlee benn produit. ay jëwaale yi comme at. te ma lay waxal lenn am na tapis rouge boo xam ni. Hmm. tapis rouge boo xam ni non plateau bi moom beneen beneen beneen affaire mais tapis rouge bi. lu lu gëj a am daal lañ bëgg indiwaat quoi. nañ la nga nga nga dem ba ci. waaw waaw parce que am na plateau bu doy waar boo xam ni <laughs> ni ñuy préparé lii xew. Euh, sur scène noonu la ñu préparé plateau boo xam ni plateau bu doy waar man nag suma rakk jee fay nekk yaaw a jéey dina nekk loo xam ni ku sañse dinañ ko génne décortiquer sa sañse wax ci benn ñaar ñett balaa ñuy fekk foofu nga xam ne suñu mag ci biir scène ba mooy DJ Boubs laataa ñu fay dem plateau bi dina doy waar ñëpp dinañ fa jaar mais duñu gis benn waali bu màgg euh, gis benn waali boo xam ni euh, chaque jour wala chaque année bu ñu gisee Wally dañuy gis mu nekk euh, euh, mu mu Wally Wally Wally Wally di gën a màgg puis Wally li mu daan def léegi da koy bàyyi dootu ko def Wally léegi naqaree gis Wally léegi raar ba pare ñu seetaan xaw ma dañ ko seetaan xaw ma dañ ko dégg Papa Thione ñu invité ko ci RFM mu wax fa ay wax yu am solo may nuyu Ilaat Cuun bu baax a baax Wally lan nga yëg ci interview boobu nga xam moom nañu ñu interviewé suñu papa nga xam ne mooy mooy papa Thione ak lan nga ak ak yan ak lan nga gis ci li mu wax ci yow ak ci li wax ci musique bi ak ci li mu wax rek ci en grosso modo. waaw ma koy saluer papa Thione li mu wax déglu naa ko damay dama koy tënk rek. ci lee ma di wax léegi léegi grandeur. Mhm. nit ku nekk sooy def liggéey. ñan nga yàlla nga dem ba am ci grandeur. Hmm. nga nekk un grand ci sa comportement ci sa waxin ci sa jëfin ci sa côté liggéey tout ça donc Papa Thione li mu wax noonu dafa wax lu exister lu réel loo xamante ni moom la gis ci Wally parce que il a tout le temps été la mais mosu ci wax donc bu ci waxee c'est parce que loolu moo am donc ma koy sant yàlla xam ni bon moom moo namm loolu ci man ma am conscience tranquille liggéey ak tranquillité ba mu mën ma seddal yéen ñi donc ma koy gërëm bu baax moom Papa Thion di ko wax yal na yàlla xeeb dolli mm-hmm. mais lépp rek ten tënku ci grandeur parce que booy ànd ak ay grand ñuy liggéey tamit ñoom tamit bëgg màgg teg ko ci yoon il faut nga màgg mm-hmm. amuloo choix am na solo mooy choix loolu am na solo may waxaat encore une fois félicitations waa Faramaren musique organisation beek ñoom Sali Gueye ñoom Bijou Aziza ñëpp parce que démb banlieue bi suñu koñ yëngal ngeen ko ba mu yëngul lool lool lool encore une fois kontaan nañ ci yéen bu baax mais Wally bu ñu nee la banlieue euh, wax la lutte wax cette relation ak Ama Baldé Wally euh, supporteru Ama la. Ama Baldé suma rakk la. Mhm. suma rakk la. ñu bokk dëkk suma kër maam muy Pikine muy rakk bu ma jox cër suma rakk la suy baali Wally Seck lay baali suy génn ci Wally Seck la jëm ñuy àndal Wally Seck la ñuy baali donc man magu Ama Baldé la je suis son grand frère ñi ma xaritoog ñeneen mbër yëpp moom suma frère la sama rakk la. donc dama ko ba jàppee comme suma rakk. ayca mais Wally est-ce que fi Wally yem nii Wally fi mu toll nii est-ce que euh, Ama war na bëreek beneen mbër wala dimbali Ama bàyyi beneen mbër bi muy euh, beneen mbër. man na nag kaay ma xamal la benn affaire. xanaa ku ma gisul. Hmm. ku ma gisul yow tey jii boo doon bëreek Ama yow Aba pour mu mu leer. Hmm. su amaa ñëwee ma jàppale ko yow boo ñëwee ma jàppale la. parce que yaakaar rek mooy indi nit ci nit. ku ñëw. te yàlla bu yaakaar tas bépp mbër boo xamante ni maa ngi séq ak yow jàppalante dama ko war a séq ak yow. Mm-hmm. je suis citoyen kenn yaay gënuma kenn papa gënuma kenn dara donc su ma yàlla dimbalee may ma doole bu mën ci teq sama doole tuuti jox ko doomu aadama je le fais sans aucun pressentiment du ma ci am benn xalaat bu ñëw. ayca mu ngi noonu suñu numéro ngi noonu euh, bu leen neexee rek mën ngeen ñoo dog ci waxtaan wi ngeen dugg ci ligne bi waaye euh, dañu gis ci soire bi bàyyi ñu gis ci benn aspect bu am solo lool lool muy aspect ndimbalante di social. waa jour bi sax am na ay concours togg ñuy def. Mm-hmm. ay concours togg concours cinq groupes yoo xam ne dañuy togg. Mm-hmm. ku dàq togg après jour ñu décoré la. Mm-hmm. togg yi après ñu koy jël dem dimbalaat ko nit ñi. muy néew doole yeeg yooyu. comme affaire jigéen la dañu bëgg mu jigéene rek ba jigéen ñi sentir seen bopp. waalo bi moo ko keroog bi ñu demee këram di waxtaan dañ ma waroon tuddee benn góor. Mm. ay jigéen da nga waroon tuddee jigéen da nga jox mais. Mm. jigéen nag moo jur góor. xam nga. Mm. loolu bu fekkoon kon moom du way. <laughs> Ah, kon du way non non en fait c'est pas ça c'est pas ça du loolu. c'est que thème bi moo laaj loolu. moo jigéen la wax. dama ko ne bàyyi waroo woon tudd benn góor. ñëpp jigéen lañ ko waroon jox. ku am sa jigéen nag bëgg ko jàppalee nga jox ko doole ñëw. mu taxaw defante. waaw waaw waaw comme comme képp ku góor. amee soxna hmm. wala sœur ñu daal ko tuddee moom. après dama comprendre ni ñitu nit ñi la. boo ko deful sax ñoom ñoo lay woon ne la pour kaa kii woo ma. lépp ñëpp la mooy loolu. sama grand sama grand jënd di ma woo di ma nawoonoo gisuma sama tur ko yaa ngi ci biir. Hmm. affaire bi moo yaatu. Hmm. concours toog bu mag lañ ciy def. cinq groupes xam naa sa émission douze treize bi sax dinañ ko ci gën a yaatal di ko wane par ay capsule ak yooyu mm. jours yi ñu jël toog bi filmer ko après waali ñëw ñu jël ko gàdduwaat ko dem jox ko ay néew bi doole dimbali leen ci incha allah bëgg na ci jël daal ba jigéen ñi ku ci ñëw ci sa bopp